lu tax moom neex na waaw man dama loolu moom neex na quoi mbetteel eh, non may naa mbetteel mosuma ko seetaan kii laa seetaan quoi wir wir laa doon seetaan bay faal bay faal ah, oh, man daf may rey quoi ak bu vélo bi. am na film bu bees tam bu may xaw a léegi nii. nu mu tudd. tour de famille. tour de famille. xool ko tour de famille bi ñu famille rek. su dee neex dama koy sénal nii comme ça. waaw. ban série moo gën a neex quoi genre ban série ba nga xamante série ba nga xamante ne am na intéressant intéressant loo xamante neex na trop quoi genre. bon li li ma gaa école idole idole je pense idole. idole waaw am na benn boy bu tudd Chérif sama copain la il est très fort. kon yow kon xanaa sa moo tax ngay nga may recommander seetaan. non non non non non non parce que il est très fort gars xam nañ ko Chérif la tudd Chérif Mal. mais il est très fort ah. acteur la mooy. waaye boy bu bu bien bopp bi dafa kii. ah ouais. waaw. déjà Sadio maintenant son bi voilà gis nga Chérif gars yi xam nañ ko Chérif hmm. booy boobu kii man du ma suivre suñu tey film les deux meilleures séries c'est Idol et Golden. am na benn série bu tudd Golden moo gën a neex. waaw dégg naa ko dégg naa ko tam Golden mais man nee na Idol moo gën a ne dégg naa Idol de. avant ça te booy yi dañuy def du nice. kon dinaa commencé saison. mu ne Vigets commissioner grosse fond euh, Osterreich